tàmbalee nag ci projet bi nga xam ne moom nga xam ne ay ay allemand ñoo ko fi indi euh, mu ngi tollu ci tollu cinquante quatre milliards ñu indi ko ci commune bu Sadio euh, waa commune bu Sadio alloué leen ay terres yoo xam ne ñu ngi tollu ci téeméeri hectares ci centre de formation boobu ñu ngi fa war a liggéey lu ñuy wax agro élevage wàllum mbay wàllum càmm war ñu faa liggéey également lu ñuy wax agro alimentaire. mooy transformer li ñu fay bay ak yooyu muy loo xam ne nag dafa am solo lool lool ba nga xam ne ñu ko indee ci commune bi ñun waa commune wax dëggam neex ya dañ ko dañ ko dañoo suñu loxo wax ne lii de lu baax la parce que bu ñëwee lu toll ci 54 milliards bu ñu ko ñëwee investir suñu commune dina tax ndaw ñu bëri nekk ci dëkk bi mën a am ci ay liggéey loolu moo taxoon bi ñu ko waxee a ah ñu ne a ah loolu kat xéewal la ñun dañu war a jàppale maire fexe ba loolu bu jëm feneen parce que ci li nga xam moom la ñu am ci information mooy loolu bi ñu ko indi ci ci ci région de Diourbel ah région de Diourbel yaakaar du commune bu Sadio kepp kon bu ñu toogee bu ñu indi ko ci commune Sadio lu toll ci projet bu toll noonu loo xam ne dafay am centre de formation loo xam ne ñëpp xam nañ ne nekkul sax loo xam ne day yem ci commune bu Sadio rek parce que dem nañ ba ne dinañu dem ba ci sous région bi mooy ay dëkk yi nga xam ne dañuy wër sax ay Mali Gambie yooyu yëpp mën nañ fi ñëw ñu ñu ñu leen di former ci wàllum mbay ci wàllum sàmm ci wàllum napp jën loolu yëpp dañ koy former fii kon loolu donc ñun dañ ñun waa Sadio en tout cas dañ koy dañ ci dañ koy dañ koy ah loolu nag ñu ngi koy fi ñooñu comme ni nga rek waa ay Allemagne ñoo fi ñëw financé ñu financé ñu ko mu am ay filières yu bëree bëri comme yi ma cité léegi ah ci réalisation yi nga xam ne aussi def nañ ko fii wala ci projet yi nga xam ne aussi maire xeex na ko ba mu ñëw ci commune bi dafa am benn bu ci bokk bu ñu wax ANIDA ANIDA benn ferme de production végétale yaakaar nañ ñëpp xam nañu ANIDA léegi fii ci Sadio barki démb rek jogaar ñu ngi doon falaat seen bureau ci eh, ñeen fukki xale yi nga xam ne jël nañu fee jël nañu fii pour ñu war di fa di liggéey te loolu aussi yaakaar naa ni njëriñu dëkk bi la te ay jeunes yu dëkk ci bi ñoo koy exploité kon loolu aussi dafay nekk loo xam ne dafay baax aussi eh, ñuy invité population bi yëpp ñu ñëw intéressé yu ci xam ne loolu am njëriñ la te loolu aussi mu ngi tollu ci 162 milliards muy téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay millions xam nga loolu aussi eh, lu am lu am am solo la aussi bu ñu jógaatee loolu am na benn fermo avicole bi fi nekkoon moo xam ne moo fi nekk boobu itam aussi juróomi ndaw ñoo ci nekkoon di ci liggéey mooy di di yar ay ganaar aussi mu nekk loo xam ne lu am solo la ci loolu ak na bokk ci li nga xam ne euh, maire également ak i parte am ñoo ko fi def ci dëkk bi euh, aussi ñu ngi am benn kii benn euh, bu ñu wax pare ba pare ba ci benn village bu ñuy wax Gerle ñoom foofu la ñu la ñu ñooñu ay Belge ñoo ko fi indi mu nekk aussi benn benn projet boo xam ne dañuy dañuy dañuy construire foofu benn forage euh, di jàppale ndaw ñi ñuy ñuy def ñuy def maraîchage euh, yaakaar naa loolu am na ay am na solo ndax ñu bëri ñu ngi wax ne ren jii am nañu douze millions trois cent mille francs donc de bénéfice loolu yaakaar naa foo ko indi ay ndaw di fa liggéey bokk nga ci ñi nga xam ñoo jàppale le président de la république ki li mu wax moo nan la ñuy def ba ndaw yi toog ci dëkk bi bañate dugg ci gaal yi dem kon bu loolu amee ñun wax dëggam neexee ñun dañu koy rafetlu ñi nga xam ne dañuy ànd ak maire dañ koy rafetlu di ko gën a di ko gën a sant di ko gën a wax aussi population bi ne lii ñun suñu obligation la mooy ñu leeral ko comme ni ko kooba waxee nag loolu mooy mooy suñu suñu suñu suñu suñu suñu problème cest di dire que ñun amuñu tamuñu di ñëw ci rajo yi wala ñu dem ci kii di wax di wax wala ñuy tontu parce que loolu nekkul suñu cër mais nag dafa tollu foo xam ne dafay jaadu ñu won population bi lii kat jot nañu ko fee jot nañu ko fee def loolu mu ngi tollu ci 15 euh, hectares fukki hectares ak juróom ñu ngi koy exploité foofu ñuy wax gela gerle te loolu aussi yaakaar naa ne am nañu yéene yaatal ko ci yeneen village yi nga xam ñoo wër wër dëkk bi ci aussi li nga xam ne mooy courant muy loo xam ne waa commune de Sadio dañ ko yàgg di jooy lool loolu aussi ay jéego yu am solo ñu ngi ko ciy def parce que am na lu ñuy wax électrification donc de de des villages am na village boo xam ne mu ngi wax Kambel gay na kër Tamsir euh, euh, ñooñu yaakaar naa ne defal nañ leen courant yi yaakaar naa lamp yi lee ñu tàkk yooyu waa PIDC ñoo ko fi ñoo ñoo ko def mais banan boo jëlee banan ak ngaraaf aussi yooyu am na ñoo xam ne ñu ngi fay yóbbu courant ñooyu nag maire bu Sadio municipal bu Sadio également ak PAPS yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy def te loolu mu ngi toll ci cent cinquante million kon loolu aussi ba léegi ñu ngi jàpp ne kon commune bi ak PAPS Ndiaye mi nga xam ne ñoo ko jiite ñu ngi def seen i effort ñu ngi def seen i seen i kéemtalaay kattan pour mën a fexe bu commune Sadio gën ci ci ndóol aussi mu ñu aj ñu yokk ci wàllum ndox ndox dafa bokkoon ci li nga xam ne commune Sadio da ko yàgg jooy mu nekk jafe-jafe bu métti ndax communes yi daanaka village yi fi nekkoon yëpp amuñoo ndox ñoom bi ñu ñëwee fexe nañ ba dëkk yu bëri fexe nañ ba gas ay ñu dem ba foofu waaye dem nañ fu gën a sori foofu parce que tey boo demee ci dëkk bu mel ni bu mel ni Sadio Mbayar ñu ngi fay gas benn benn gas nañ fa benn forage loolu waa PDC ñoo ko def ba forage boobu bon na ba tey boo génnoon di nga gis ñu ngi construction en fait de construction pour pour château d'eau bi aussi loolu aussi defa nañu ko ci beneen village bu ñu wax bu ñu wax Kambel ba Badji dimanche Badji aussi ñu ngi fay gas benn benn forage gas nañu ko ba ba moom itam ah, eh, ñu ngi presque ci ci ci ci ci ci taw ci ci jeexantal bi ñu toll kon yooyu aussi waa de PIDC ñoo ko fi def euh, boo ñëwee ci aussi euh, li ma doon wax léegi mooy implantation donc de borne de borne fontaine yi ay dëkk yu bëri bëri dem foofu boo fa demee même boo fa ña ngay am ndox parce que jëlee nañu ay ay ay ay ay tiw ci ay forage fexe ba yóbbu yottu ñooñu ko yu ndox te loolu kon yaakaar population bi yëpp gis nañ ko euh, ci wàllum santé aussi ci wàllu euh, santé bi ay efforts yu am solo def nañ ko fi yu am am solo ndax tey euh, municipalité bi tabax na ñeenti case de santé ci village yi ma bëgg may bëgg lim Banan Kambel Gayna Kër Tamsir Ngaraaf Mbayeen te loolu commune bi moo ko moo ko liggéey ci lu toll ci vingt millions ci ñaar fukki millions kon loolu aussi lu am solo la.